delà du de de avril contrat ak sénégalais yi jeex na. mais mais respecte na aussi processus bi nga xam ne xëy na moo war a yokk mandat bi de quelques mois assemblée la jaar après conseil constitutionnel war a war a wax kàddoom aussi. non amul benn processus bu prévoir yokk mandat président de la République ça n'existe nulle part. donc dans tous les cas même si le conseil donne son avis un avis favorable jamono ji au-delà du 2 avril amatuñu président boo xam ne. Euh, légitime légitime na. non il perd sa légitimité au-delà du 2 mhm. donc euh, conseil mënul def lu dul cette euh, cette euh, cette réforme cet amendement qui a été apporté à l'article 31 de la constitution. lan moo tax conseil war koo def. mais parce que dafa laal constitution bi dafa anticonstitutionnel parce que ñoom ñooy les véritables gardiens de la constitution. au, mm -hmm. au-delà du chef de l'État. Mm -hmm. même le chef de l'État s'est rendu coupable de parjure parce qu'il a juré euh, euh, euh, devant Dieu et devant la nation. d'observer comme de faire observer scrupuleusement la constitution et les lois. li ci mbir mi ci avis ñu bëri bëri mooy que ki ñu garantir woon ne mandat bi kenn dootu ko mën a laalati moom justement moom moo ko laal. mais c'est ça le paradoxe. parce que verrou boobu double verrou. Mm-hmm. bi mu am article 27 ak article moom moo ko proposé ci référendum 2016 dès lors kenn mënul laal la durée du mandat. Mm-hmm. donc même bu ñu repousser élection bi de deux mois sax on touche. à la durée du mandat. mais est-ce que jàmm gënul élection parce que loolu la ñu wax les raisons évoquées mooy euh, situation sociopolitique bi ak euh, irrégularité yi ñu gisoon ci déroulement processus bi est-ce que tamit loolu bu abutiroon du indi musiba goo xam ne kenn du ci kenn du ci mucc. mais non il faut loolu la ñu bëgg gëm loo non non il faut pas penser comme ça c'est c'est c'est artificiel jàmm moo gën élection. mais jàmm moo amoon ba bi muy jël décret décret bi moo moo tax jàmm amul moo tax vendredi il y a eu des morts des manifestations violentes mm c'est parce qu'il a pris un décret pour fausser rendez-vous au peuple pour confisquer le vote du peuple donc loolu moo moo moo indi ay ay ay soubresauts mm-hmm. mais jàmm moo amoon kon bu ñu ni jàmm moo gën élection parce que ci jàmm la nekkoon te ba léegi les institutions fonctionnent il y pas de crise des institutions